mu am kersa nag ndax li mu waxoon sëñ ba sëñ jox ko xaalisam mu ñëw di ko wax di mettitlu bi mu waxee ba pare sëñ Cheikh dañu ko woon liggéeyuma ngir am bénéfice de dama doon wane aw yoon waaye bëgg bénéfice taxul woon may liggéey may daa bëggoon wax nit ñi ni dañoo war a jóg dem liggéey ngir mën a fajal seen bopp seen soxla asgor bu bëggee dagg buumi gàcce day nangoo wetti aw ñaqam loolu la ci doon dem dem na fa beneen yoon boo xamante ne nii ay tool yu ñu ko doon wax muy visité sëñ Cheikh bëgg-bëggam jaral na ko lu ne marocain yu bees yi mu yor moom lay xuuse ci ndox mi ba góor gu ñuy wax Tafsir sàll mooy bàyyi gàddu Sall mi secretaire général fédération bi moo ko wax ni ko fii loo fi gis lu jar lii xoolal sa mbub mi ndax sëñ Cheikh du woggantiku du aj nii dana ko boole nii nag poñe ko ci gannaawam waaye du aj ndox mbub mi xoojee ci ndox mi marocain yi di xoos ci ndox mi mu ni ko lii lu ko fi jar loo fi gis mu ne ko dama bëgg ñu xam ne lu mën a yor senegal mën naa ñore fii te ba léegi àgguñ ci muy ci volet bi loolu daf doon xame rek ni kilifa dafa war a jóg ngir liggéey liggéey loo njabootam Sëñ Tuubaa ci lañ ko doon ne soxna Faati Xujja mi xam ne mooy yaay soxna Mbeen ngaabu bi leen sëñ bi di yóbbu ngaabu dani nañ leen wutal ci xaalis bi fi nekk loo xamee suñ demee foofa di ca yaxantu ni leen su ngeen demee dee leen ràbb ay sër di ko jaay su ngeen demee dee leen suub ay sër di ko jaay dee leen yar xalum tara biir ba gor su ko gis soxla ko ngeen jaay ko waaye da leen xamaloon nag ni leen lii ma leen lebal su ngeen demee da ngeen koy delloo siwaat la ca doon tonowu ngeen jël ko bañ demee liggéey ba am dara dikk di ko delsi dañ leen yóbbu leen ko ngeen yokke ko li ngeen doon liggéey kon daleen doon wan aw yoon ndax bu leen ni woon dama leen koo may dañ ko daal di lekk mu jeex mooy kilifa diine day orienté njabootam pour ñu mën a liggéey waaye daf leen di jàppale itam ci liggéeyin wa nga gis ni loolu moo taxoon suñ ceex projet yi mu doon am mu mën koo financer boppam loolu moo ko may ndax kasetam bii nga xamante ni moo fi des ci wax gis nga bi muy wax ak état bi ci ferme ferme yi mu doon wax état bi doon wax ni da koo bëgg a def te sëñ Cheikh ni moom pare na pour participer ci dañ leen suuf am naa ko aw nit am na fi jumtukaay yi lu ma ci amut mën naa koo wuti ay technicien rek laa soxla loolu da gis ni taxawaayu kilifa diine la ci njabootam nga gis ne itam ni dafay laaj ci kilifa diineem mooy mu boole ak njabootam ba kenn ku nekk li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom bu ko defee seetaanante du am bu seetaanante amul rek problème yu bari mën naa réglé wu ndax su borom moo séddale wërsëg yi te tollolewul kenn ku ci nekk am na lu la jox am na ñoo xam jox na leen lu bari am ñoo xam ne lu tuuti la leen jox am ñoo xamante ni daanaka rek def leen ni topp leen ñële loolu faw mu mu boole leen moo taxoon objectif am moo doon boole jullit ñi ci buumuk dimbalante ak taxawu diine ji boolewu leen rek ngir bu ma amee ndigal jox leen ko boolewu leen ngir bu ma amee ay tool bëgg ngeen bàyyal ma ko boolewu leen ngir bu ma dee tabax kër ngeen tabaxal ma ko déedéet dañu dama bëgg ngeen di jariñu di jariñante loolu mooy rolu kilifa diine ndax loolu mooy koy wàññil ay sarsam mooy fexe ba njabootam fam leen waroon a féete njabootam mënal ko seen bopp nga gis ni boole gi mu leen boole li ko ci gën a neex mooy activité sociale yi am mooy su soxla amee kenn ku nekk ñun làmb poosam te loolu la leen digaloon ni leen saa yu yitte ñëwee na ngeen làmb seen poos def ko su ngeen làmbee seen poos te mënu ko la ngeen ma fa dajaleel di ma ci tudd jël leen ko def ko ci su ngeen ko ci defee te matut xool leen fu ma ne ci réew mi ngeen fekk ma fa ma mottali ko fu ma ne la ngeen fekk ma fa ma mottali ko kon dajale njabootam doon na ko neex torop nga gis ni ci njëlbeen bi muy door a formé daayira yi di taxawal te yépp taxawagul waa Touba dañoo am ko bokk ci ñoom wéradi te fekk sëñ Cheikh daa tukki ñu jël keesu daayira ba dem faje ko ko yàlla dogal mu faatu ñu jaajuwaat dajale seen xayis kenn ku ci nekk indi dara ñu saraxal ko ci soxna sam fa bàyyi woon itam toll ab diggante laata sëñ Cheikh di ñëw soxna si am doom yitte yooyu yëpp seen kaw la daanu ndax sëñ bi nekku ñu tuddal ko bi sëñ bi ñëwee nag ñu dem di ko jox compte rendu di ko wax ni ko diw dafa wéradi woon doon nañ ko jéem a faj waaye suñu borom dikk na ci ak coobareem ba toppatoo nañ gannaawam soxna si mu fi bàyyi woon it daal laxasoo woon waaye suñ borom doxal na mu yeewu ci diggante bi ba toppatoo nañ ko lañ fa dajale woon di ko def lii ci des keroog la leen wax ni leen yéen a may door a defal lu ma neex ba ma leen di boole lii rek taxoon ba ngeen di taxawante rek moo tax loolu rolu kilifa diine la tax ñu war a roy taxawaay yooyu yëpp ci moom mooy ni ko doxalinu réew mi ñore ni ko njàng mi ñore ni ko liggéeyu nit ñi ñore yooyu dem na relation yi jóg dem ci biti wuti ay relation ngir ni doomu aadama man-manam dafa bariwut te daa am ñoo xam suñu borom daf leen a dénk wërsëg am ñoo xamee la la leen suñu borom dénk ndax suñu ci daan wax ni lu mel ni européen yi am nañu xaalis égyptiens yi am nañ am nañ ndox muy volet bi ñi am doole nga xam ne kàttanug yaram lañ am mu ni ñoo ñett bu ñu àndee mën a am dara parce que ndox mi lañuy ñuy jëfandikoo ak suuf si ak doole ji ngir mën a récolter dara mën a jóg ci situation yi ñu dem mooy lëggéey la gëmoon amoon na ay tool fële ca Libéria Libéria amoon na fay tool te ab projet la boo xamante ni daf ko doon lijjanti ak américains yi français yi gàllankoor ko ndax njiitum réew mi moo gàntu te demoon nañ ba signé ko bu pare ñoom ñu orienté ko ni ko léegi da ngay dem ci anglophone yi xëy na ñooy gën a neex a jëflanteel looloo taxoon mu transféré ko yóbbu ko yóbbu ko Libéria loolu itam expérience moo ko may ay relation moo ko may waaye jàng ak xam doxalinu àdduna ci ni suuf si territoire yi wër tënk loolu mook ko may nga gis ni itam ni kilifa war naa doylu ba dee ko jënd ndax bari na nag yu ñu dal yoo xamante ni nu lool rekk ñu ko teg waaye moom fexewoon na ba ñàkk boppam ba mëneesu koo jënd muy ngor ci boppam la suñu borom defoon ci moom mu di ko suuxal daa dem arabu saoudite roi Faysal recevoir leen jox ko 60 millions mu delloo ko ngir ni saa sëñ lekk lu mu xamut fan la jóge léegi loolu ndax ñi koy def bari na sëñu ko lekk sëñ te lekk lu mu xamut fu muy jóge moo tax mu laaj leen ni leen li ngeen may jox lii ngeen ma jox fu mu jóge parce que yéen benn pétrole ngeen am wala impôt wala azak ban la ci ñu ne ko asaka la mu ne asaka da ngeen koy jox borom man du ma lekk asaka ayib alxuraan ba sax la jëfandikoo rek comme ay arab lañ innama sadaqatu lil fuqara la leen wax rek wal masakin wal amilina alayha wal muallafati xulubum te yooyu alxuraan tudd sëñ Cheikh du ca benn su fekkonte ni nii fi mu war a taxawee taxawu fi da koy récupérer waaye da leen koo bàyyee ba benn géwél dégg ko ñëw di dal ci kawam ni ko bi nga ko soxlawutit nun soxla nan ko mënul nga ko jël nga jox nu ko sëñ Cheikh ni ko foo ko yëgee ndax ginnaaw bi muy def activité bi moom fekkiwu ko mu ni ko foo ko yëgee mu ni ko gaayee ma ko wax mu ni ko bu ma ko jëloon nit ñu wax la ko su ko jëloon ñu wax ko te te loolu mooy sàmm gi muy sàmm dignité am loolu xam boppam mu mel ni itam kilifa war naa bàyyi xel boppam ndax daa moomatul boppam dafa jaboote moo tax mu xam war a xam bu baax baax fi mu teg tànkam ndax ku ñuy topp da ngay dëgg fu leer te koo xam ne boo meree junni mer sa mer war nga koy waaj ndax boo dóoree junni dóor moo tax mu doon sàmm dignité bi ko suñ borom jox ba yu bare bari doo ko ci séen bari wuti wax du gaaw a àddu jëf la gën a mane boole ko aw fit boo xamante ne ni ndax dañu boo amee kilifa gu ragal ci samp saw ngay dëkk moom du daw ndax dañuy wax ni boroom xam-xam la waaye du wax te wax jotut boroom alal boroom wërsëg la waaye du fo boroom doole la te du tooñ yi daje woon na ci moom boroom xam-xam la du wax te wax jotu boroom wërsëg la te du fo boroom doole la waaye du tooñ yooyu doon na ko bàyyi xel bu baax a baax nga gis ni itam ni ci expérience boobu bii mu am ci la nase mbooloo mi ngir xam na ni moom kenn la te lu kenn man mbooloo ko ko dàq mu nas mbooloo mi ngir bu ñuy dox mu mu mën a méngoo ak aw doxinam ndax moom ni mu mel noonu la bëggoon mbooloo mi mel ni mooy di taxaw fi ñu war a taxaw di faj li ñu war a faj te teg ko ci xam-xam nga xam ne te ni xam-xam du leen critiquer ngor du leen joxoñ nit lii ak goree la wala lii nangam ak nangam doon itam dana baax itam ci ci kilifa muy fonk kàddoom kàddu sëñ Moussa daa wax ni nit du bàyyi ma bàyyi ma la takk buum ca baat ba di ko wommat nee nit du borom yi béjjën borom yi béjjën la ñuy jël ca béjjën yi takk ca buum di wommat jëme fu la neex mu ni nit bu amul kàddu du kenn moo tax ba ko géwal ba ne yow mi nga xam ne loo wax def ko dañu ko loo wax def ko yàlla ko jagoo waaye du ma wax lu ma nëru nga gis itam fi mu doon nii lii xew léeg-léeg nga wax a kilifa mun la waaw nga xam ni waaw la la wax te waaw jooju déedéet lay tekki lim la wax naru ci dara loolu itam dafay mat di bàyyi xel bu baax a baax nga gis ni itam ni ci fonk goog yi muy fonk kàddoom moo tax lépp lu ngeen di waxtaane da koy teg ci norme yoo xamante ne ni xam-xam du ko tindi waaye du doxe bakkanam loolu itam bokkoon na ci yi nga xamante ne ni danañ ko séentu ci kilifa diine ndax kilifa diine bu waxam dee tebbi ko lu bari day mujj bu waxateet wax ja du dikk dara dañuy mujj woyofal kàddoom ndax ñàkk respecté gi ñàkk respecté boppam ba lu mu wax mu dañ mooy tax nga xam ni kon bokk na ci li ñuy xalaat xaar ci kilifa ak diine mooy am njariñ njariñ kilifa ak diine daa war am njariñ waaw nit desu ko lekk de su ko naan njariñ lañ koy jaye nit bu amul njariñ daanaka manees na koo sànni gis nga boo amoon fii ñaari garab mango genn gi di meññ gi ci des du meññ gii dul meññ moom lañuy ñu daggee làkk ko gii meññ te ñaar yëpp mango la mooy gi daamul njëriñ moo tax sëñ Moussa daan wax ni kilifa bu amul njariñ amut fulla mënta yilife ndax nee na boo amul njariñ koo yilif dalay bañ te nit waroo koo yilif ba pare mut la bañ nee na boo amut fulla koo yilif dalay yeb te nee na mu nit ki waroo koo yilif ba pare mu la yab moo tax mu ne kilifa dafa war a am fulla ba pare am njariñ daana ko misaal sax ne kilifa day mel ni sawara mooy da ngay tàng jër ba pare bari njariñ gis nga sawara mooy xëy ni duru ab dëkk taal ko ba sëppelu fële waaye du tee bu timisee nga gis kenn ko ne di xot-xotalaat ca wet ga lum lekk mooy mënu ko ñàkk daa am njariñ moo la rafleel ba nga génn ci biti waaye moo lay defaraat fee dara loo de ci sa moo tax kilifa mënta ñàkk aw tàngoor waaye mënta ñàkk ndag nag njariñ loo xamante ne ni kenn du ko mën a muñ loolu daf ci am solo trop nga gis ni bokk na ci kilifa yi li ñu daan taxawee mooy yërmaane ci njaboot yërëm sa njaboot tax loolu itam dana tax njaboot gi war warmal la danay tax itam respect bi dox seen diggante dana tax itam ñu rus la ba la nga leen di tere doo leen ca seen loolu itam bokkoon na ci melokaan yi nga xamante ni yonent bi yooyu yëpp nag ay jikko la yoo xamante ni rek boo delluwaatee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko làmbee fekk mu jikkoo loolu lépp loolu lépp daf koy jikkoo ndax moom la yàlla yónni ci jaam yi moo war a xàllal nit ñi yoon wu ñu war a dunde te loolu lépp l'islam préparé woon na ko waaye biñ jaxasoog ñi nga xamante ni duñ ñuñ diine ñoo fexe ba yëlëb suñu loxo ci doxalinu àdduna wi ngir ni yéen kat ay kilifa nga leen waru leen a dugg ci doxalinu àdduna fekk dañ koo salteel gis nga politique bu yàqu bii du dara lu dul suñu jikko moo yàqu politique bi dara sikku ci politique aw doxalin la woo xam ne moom la ñuy saytoo aw askan niñ ko tilimale ba kilifa soxlaatu ko nag loolu mooy suñu jikko moo yàqu ndax war la wax lu du dëgg lekk loo moomut yàq sa moroomum ko loolu rek mooy politique bi léegi foo déggee ñu ni politicien rek loolu ngay xaar ci moom mooy li may wax xam naa ni du dëgg man man mi koy dégg la engagé waaye moom mi koy wax moom li muy wax dara engagé wu ko ci lu luñ boole ñun ñëpp nga bëgg koo lekk yow dong wax lu du dëgg yo yooyu dong lay doon nga xam ne liñ leen jàppee ñoom ñëpp mooy loolu te loolu asgor mënu ko asgor mënu ko moo tax Cheikh Tidiane si almaksum bi mu fi defee parti bi di di campagne am ci mbokk yi ko wax ni koy booy boo nga toog ndax yow yow ay gañe mu ni ko foo ko teg mu ni ko gor ñëpp lañu ànd yow lañu àndal mu ni ko ndeysaan gor ñi bëri wuñ laa ñàkk ndax gor ñi bëri wuñ waaw ko ah ni ko njërul ngay ñëwee ci sonn di campagne gor ñëpp yow lañu àndal yow yaay gañe mu ni ko foo ko teg mu ni ko gor ñëpp yow lañu àndal mu ni ko ah, booba laa ñàkk gor ñi bëri gor ñi ñoo néew te dara warlu ko lu dul ñàkk xam fu ñuy teg seen tànk yaruñu leen ci tàggatuñu leen ci loolu moo moo indi li li xew léegi nga xam ne la sëñ Moussa Ka doon wax fi la jamono toll mooy ña desoon gannaaw di yaale ña desoon gannaaw léegi ñoo jiitu ña waroon a jiitu fi doon nii léegi ñoom ñoo des ginnaaw te ñàkk xam fu ñuy teg seen tànk ñàkk xam liñ leen doon doyee moo tax ñu des ginnaaw ba ñañ waroon di jox ndiggal di leen yi far jiitu te mooy ñàkk a jàng ak ñàkk liggéey mooy ñàkk moom sa bopp ñàkk am liberté ci say xalaat bañ di la xalaatal di la tëral programme nga di ca jaar soo ko defee rek dugal nañ la ci pot boo xamante sañutoo yëngu te loolu moo dal kilifa yu baree bari te mooy ñàkk xam képp moo ko lal lépp en tout loolu rek lay jëriñ ndax boo seetluwaatee ci njëlbeen ga tubaab yi bi ñuy bëgg bàyyi réew mi dañoo wër kilifa yi neen dañuy dañuy jàpp ni dañuy delluwaat nu bëgg ngeen jox nu seen njaboot yi ñu jàngal leen ba bu ëllëgee suñ fi jógee ñoom ñu mën mën noo wóotu ñañ doon waxal dégguñu leen dañoo dem jëli seen jaam ya ca wanag ya yóbbu leen ñu jàngee bàyyi fa seeni doom ñooñu bañ jàngee ñooy première cadre yi génn diplômé état bi lépp ñoo ko moomoon sëriñ si des ci gannaaw ka nga demoon fanakon sa wanag di ko jox ndigal nag bu jiitoo tey da faw mu yilif la loo bëgg faw nga daw ci gannaaw loola moo nu bàyyiwut ba nëgëni sëñ Cheikh Mbacke nag loolu la xamoon moo taxoon mu créé école yi wax njaboot gi ni leen nañ leen ci dugal te jàngaloo leen am réew xam-xam a koy yor baati koy jàng ni leen na yi jàng waaye dégguñu ko jàng xiirtal ca njabootam jàngaloo ji leen bi mu leen di jàngaloo ji bari na ñu ko doon critiqué ña ko doon critiqué ñëpp wàññi ko at nañ ca lañ ko doon critiqué ndax gis nañ mooy solution te mooy taxawu ndaw ñi ndax dafa dafa tourné bi mu tourné ba ba ñëw dañuy gis naa tourné bi mu doon def 70 pour cent yi ay gone lañ te nee na ñooñu ñooy fekkee ëllëg kon sunu teraangay di tey sunu teraangay doomi ëllëg nanu ko gënal nañ investir ci gone yi ndax xam na développement moom ci gone ak jigéen la ne ñooñu bu ñu baaxut société bi day perte ci ñooñu la doon investir taxawu leen ngir def ci seen bopp yi xam-xam ba bu ëllëgee kenn du leen mën a nax moo tax mos naa ànd ak genn kilifa kilifa ko di ko laaj ni ko ana sëriñ ak Abdul Fattah sëñ Cheikh ni ko ñu ngi fi mu ne ko mbaa yaa ngi leen di miinal taalibe yi sëñ Cheikh ni déedéet dama leen di jàngaloo kooko laaj ko ni ko lu tax mu ni ko tappale yi la bëgg bu jeexee bu ëllëgee ñu mën a yor seen bopp tappale yi bëgg bu jeexee bu ëllëgee ñu mën a yor seen bopp yenn doomam ju ci toog di xaar luñ koy jox ngir mu mën koo dunde amut koo ci gis yaa ko fekki wala ngeen dox daje ci yitte laaj yu ñu la kañ laa fay ñëw wala koo may sédd ci sa gone yi wala wutal ma foofu nangam jenn doomi si Cheikh ju koy laaj dañ caa lu tax da leen a teel a xamal ne la boo xamee ba pare man soo ko jaayee am dara xam-xam ak man man moom la ñuy boole pour am dara mu teel a def ci ñoom xam-xam teel a xam leen ni ardullahi waasia expérience bi nga jàng boo ko utiliser ci suuf si am loo mën a dundee gémmiñ gu yàlla xar dana ci dugal lu mu lekk mbaa mu sotti ci suuf ñaar yooyu rek kay am yàlla moom bu nammee nga ne fi dana la jox lu tax nga ne fi wala mu jële la fi ñaar yooyu rekk ci am moo tax kilifa dafa war a jàng ba pare am liggéey lu dal lu dal kilifa yi nun noo leen ko teg nun dongo yi lu bare bari lu dal kilifa yi ndax nun jàpp na ni kilifa wërta liggéey nun loolu lañ jàpp fi mu toll nii suñu xayma bu ubbi woon bitik ca kii ñu ne ko mukk ëpp naa kilifa du du liggéey xam naa da ngay wut ko la ci jaayam te kooku dénk mu lekk ko boo liggéey nga ni ko ah moom kay sëñ booy boo nga muñ rek yaa ko jaboot fan la jëm bu doon dawalal boppam fi mu doon nii nga ne ko ah sëñ bi te nga wut ko la dawalal kilifa du dawal kooku bu ne woon léegi damay ubbi transport ñu ne ko ëpp naa def bu amoon ab sànc di fa xëy di ko taxawal boppam rek ñu ne ko sëñ bi sànc dal kilifa du ko taxawal boppam wutal ko la ca wóotu kon bu ñu woon ab entreprise damay damay maçon ji dañ naa ko mukk loolu du ci dal te duñ la féete fenn moo tax yu bari bari yi di am lëj lëj yu ndaw yi di am yëpp yëpp yëpp mooy ñàkk ko teg sëñ Cheikh loolu la teeloon a xam moo tax mu orienté woon njabootam teg leen ci yoon loolu day feeñ ci rek suñu xaay la ciy feeñ bu baax a baax wóor na la ab intellectuel la ndax foo noonu fa gaa yi génn fa la génne université la génne kon xam na dara te mi ngi yëngu loo ko wax fekk na mu gën la koo xam donte ay tegginam dana ko may du la wax dara ba nga expliquer ba ni xaaw waaye xam na ci loo xam yow xamoo ko mooy mënoo koo nax mënoo koo dugal ci loo xamante ne ni waru caa dugg ndax xam na fu muy teg tànkam doo dégg soxlaam itam ndax am na lu muy yëngu yoo xamante ne ni wóor na ko ni sun borom dana ko suturaal ndax am na jomi liggéey te doylu na lu waay yor yéene ko ko nag ba ak jox ko ko mu xam ne loola ndimbalul yàlla la looloo taxoon sëñ bi am ci bokk yi koo xamante ni nii daf doon waxtaan ak moom bàyyi ma ko ci yónni woon sax mu amoon mbokk mu wàccub liggéey mu di ko tàggee si bi mu ñëwee wax ak sëñ Cheikh sëñ Cheikh laaj ko kooku fan la ne woon mu ni ko bitim réew la ne woon mu ni ko yow foo ne kooku ni ko man Kaffrine laa nekk sëñ Cheikh ni ko loo fay def mu ni ko damay damay liggéey damay jaay ca marché ba waaye su nawetee damay dem ca tool ya bay sëñ Cheikh dañu ko na ko fonk te góor góorgóorlu ci gis nga ñi ngeen di taseel ci kanam duñ liggéeyub xaalis di ko jox kenn nga di ko fooyee mooy teel a xam rek kim xam àdduna ni muy doxee ndax nit ñi seen xel yi day gën di ubbeeku seenu xam-xam day gën di yaatu li ñuy joxe dañ koy organiser dañu xam fi ñu koy jox moo tax laaj na yeneen taxawaay ci njaboot gi ngir responsabilité yi ñëw ci ëllëg waaye daal nañu xam ni kilifa goog diine nga xam ni diine ko fal la ci jiitu mooy na niru li mu doon foo ko gis bu nattab le kii kilifa diine la ndax diine ko fal nay dundal diine ab jataayam ku fay ñëw na fekk diine di dund bu bokk ci ñiy làggal diine di ko sàggane ndax moom diine ko fal bokk na ci ay taxawaay mooy njaboot gi mu njaboote na leen di taxawu ci seenum njàng di leen ko laaj fu njàng mi toll di leen orienté parce que mooy tax ñoom ñu xam fuñ jëm te loolu manqué na ci société kilifa guy orienté ay ay ay ay ay njabootam nga xam ne njaboot da naan université lañ jëm nga leen bu ngeen demee suivre leen bànqaas sàngam wala lycée lañ ne nga ne suivre bànqaas sàngam ndax nangam boo demee cité nangam ak nangam waaye su ko ne yëpp fi mu doon koo ci laaj looy def danaa la ell lay def littérature wax rek senegal wax rek waxaguñ ba taxawal fi dara dara lañ fi wax koo fi gis danaa la ell lay def xaw ma ell daa gën a yomb xaw ma demee waaye wax waaye lu jëm ci technique wala lu jëm ci informatique lu jëm ci matamatique yooyu nga xamante ne ni xam-xamu science la moom c'est très rare ngay gis ñu ci dugg boo ci duggee sax yeneen élèves yu ci des dañ lay yéem dañ sa am nga fit de te man gisaguma wax lu mu fi taxawal ci Sénégal gis naa fi lu bare bare la lu yàqu yoo xam ne wax ko yàqu waaye gisaguma lu fi wax de te kilifa yi mënoon nañuy orienté orienté seen seen njaboot daa ay dongo yu ñu joxoon sëñ Cheikh kenn koo xamee ci bàmbay lu jóge woon ab groupe lañ fekk sëñ Cheikh di tukki wax sëñ Ahmad Tindo di ni ko ñeen nit ñi nañ leen yóbbu ñu jàngi tubaab ci école français ñi ci des nañ leen yóbbu Daaru Salaam ci suñ modukat ñi ci des ay tu tànk lañ nañ leen bàyyi ba mu ñëw kooku bokk dëkk Bambey bokk ci ñiñ ne woon nañ jàngi tubaab kooku ni moom du dem ndax Bambey am na école yi tubaab bu fekkoon jàngum tubaab rek bàyyam foofu la koy dugal bi sëñ Cheikh dikkee sëñ mu wax ko ko sëñ Cheikh da ko woo ba ñëw ni ko léegi ndax xam nga lu tax sa bàyyi indi la fi mu ni ko déedéet mu ni ko sa bàyyi daa bëgg lu ma la digal nga def ko lu ma la tere nga bàyyi ko loolu doo nga tax jox ma daan ko demal jàngi kooku ba mu jàngee ba pare léegi ingénieur agronome la te loolu la loolu la gisoon ci moom muy maîtriser gi mu maîtriser doomu adama mooy tax kenn ku mu yor dana xam léegi sa avenir lan la nga xam ni ca loola la lay la lay orienté jëmale te loolu xam-xam la rek boo xamante ne ni suñ borom mën na koo yenkee nit nit mën naa jàng itam ba xam ko boo gisee tubaab gën ñoo avancé mooy seeni doom bu ñu tolloo ci fo lañ leen di jëndal fowukaay yu bare bari di ko observé nag ba xam moom xelam ci lan la jëm parce que nit mën nañ ko orienté dara te fekk opté wut pour loolu te yont mi ne kullun muyassarun li ma xuliq kenn ku ci nekk la taxoon suñu borom bind la lu jàppandi lay doon ci yow lu am solo la muy bàyyi xel njaboot gi di leen surveiller ndànk-ndànk di leen mooy tax nga mën leen a orienté ci loo xam ne bu ëllëgee dana leen amal njëriñ ndax doomu aadama yi daa bari lu suñu borom denc ci ñoom te li ci des mooy feeñal ko rek feeñal ko xam nga suñu borom toogul ba jamono ji muy door a fent avion bu yàgg-yàgg la ko yàlla fentoon waaye kañ lay feeñ mooy tubaab bi ko war a liggéey bi mu juddoo la suñ borom nam mu xam-xam boobu génn waaye ba mu ne kun rek kunam jëcca la lépp ne moo tax suñ borom lu bare bari mi ngi mu doxañ ci biir doomu aadama waaye kan moo koy yee ba mu yeewoo ba xam-xam boobu mën a yeewu mooy kilifa gu farlu ci njabootam te am taxawaay nga xam day jàpp ni li ma manqué woon ci sama sama sama jëmm moom laa bëgg a dabaatal ci sama njaboot mooy faw ñu jàngi réew mi loxo yim nekk ndax dañ koo moom doon doonuñu ko ci seen i baay doonuñu ko ci seen i maam loolu tey jàng pour léegi jëli jëli réew mi ci seen i loxo du ndono xam-xam rek lay doon bu boobaan nag faaw ñu jéem a sóobu liggéey xam ko looloo taxoon sëñ Cheikh ni sëñ Sall ambassadeur sëñ tubaab bi mu fi nekkee jàng ak jàngale moo ko waroon te la newoon ni ko sëñ Moussa jàng ak jàngale moo ko waroon te ci la newoon ni ko maag yow mii moo nu war. donte nekkunu ca kon dana war a wut ñu nu ca wootu waaye bu fekkonte ni daa dikk rek jàpp ni léegi moom ab sëriñ la der bi jullikaay bi rek ca lay yem fii mu agsi du fa agsi déedéet waaye daa jàpp ni loolu mën naa ànd ak yëngutu nag di liggéey ngir am lu lew lu mën a dunde loo xam mën naa sàmm ngorom sàmm diineem te mën na caa dimbali itam néew ju doole ju soxla woon dimbal di sàkku dana ko ubbil ay bunt itam ci connaissance yoo xamante ni lu mu bëgg a lijjanti mën naa toog fa toog lijjanti ko yooyu yëpp ay taxawaay la yoo xamante ne ni moom la xaar ci kilifa ak diine waaye léegi nun liñ bëgg a jàppee ab sëriñ moom mooy koo xamante ni xamul dara am saa yoo déggee ñu ni diw sëriñ la xamal ni dañ la dof la xamul dara diw ab sëriñ kese la mooy xamul dara waaye ah, diw di ab sëriñ ak ku la mooy kooku la société bi soxla mooy koo xam ne mënoo koo nax mënoo koo jaarloo fu mu wërta jaar mënoo koo defloo loo xamante ni ni waru koo def parce que bunt yi nga war a mën a jaar ba defloo ko moom ni nga ko xamee noonu la ko xamee ba pare nag moom mu am lu muy rus am lu muy jombale boppam te amoo ko kon kooku waru laa defum àndandoo laa defum nawle loolu feeñ na ci jëmm ji nga xamante ne ni moom lañ doon waxtaane wala moom lañ jëloon exemple pour waxtaane ko mooy rolu kilifa diine ci njabootam loolu rek la ko may kër Mor Diassi googu fi ñuy wax kër Mor Diassi bi mu koy tabax bi mu ko tabaxee ba pare sëñ Ndindi ñëw na fa mu ni ko wëral sëñ Ndindi wër tabax bi ba pare laaj ko sëñ Cheikh ni ko seen dërëm demu ci nag waaw bi sëñ Ndindi wëree ba pare ba ni ko ah tabax bi da tabaar fakal la rafet na de moom de moom yéeme na sëñ Cheikh ni ko seen dërëm demu ci maam benn dërëmub taalibe boo xam ne addiya la bu dem ci tawax ba amul nee na ko tawax bi lépp sama ñaq waaw sama sama ñaq loolu da ko doon xamal rek ni ko dama liggéey daf maa war ni mu leen waree moo taxoon tukkeem yu bari yëpp fi ne nii tukki liggéey la ak ay visite yu mu doon def ak ay relation yoo xamante ni daf ko doon dox waaye doxut woon ngir wuuti lu mu mënta ñàkk loo xam daf koy ñaane déedéet. amul li mu doon def lépp dem na Côte d'Ivoire Houphouët Boigny dalal ko jox ko oto ni ko pour mu wër dëkk bi benn Mercedes boo xamante ni benn porte la bi mu wëree ba ñëw da koo waat ni ko oto benn porte baaxul ñu ko jox beneen loolu xam ngim xam boppam moo tax moo ko may loolu waaye am na ñoo xam bu leen ko defaloon am siiw la Houphouët recevoir ko jox ko audience laaj ko loo soxla mu ni ko soxlawuma dara dama dégg ni ku bëgg sa réew nga ku nangoo liggéey nga rek mat la seet waaye déwu fa ngir ngir wut ndimmal ku bëgg sa réew nga ku nangoo liggéey nga moo tax léeg-léeg nga dégg ab sëñ ci bitti ñu naan dafaa dem ngir yàlla wala ah, weesu Tuuba fii di dem Europe ngir yàlla waaw mënees na caa jàpp de waaye xel du ko nangu laneen lay doon dem na fii ci Niger ñu dajale xaalis ca kër sëñ Tuuba nga jox ko ko mu leen yor leen ko Abdoulaat moo fi nekkal sëñ Tuuba mooy toujours bàyyi xel yu baree baree baree bare nga xam ne ak cëriñ du niñ ko jàppee rek course ga der ba dëkk ci néegum ñax di lekk lu naqare fi mu doon daal gars yi ku gën a tilim mbubb nañ jàpp ni moom ab sëriñ la bu dee kuy sol lu rafet dëkk fu rafet ñu ne ah kii de sëriñ a ko sulëf la sëñ Cheikh loolu la effacé woon kër gu baax lay am wata bu baax a baax lay am col gu rafet lay sol dépense bu doy sëkk lay jëm boo xam ni doone parce que dañu woon nit day defar jëmmam ba ku la gis xeemeem la nga defar sa dëkkuwaay ba fa ñëw naw la nga defar sa jikko ba ku la mindeetu la bàyyi loolu lañ soxla ci nit nit dëgg noonu lay mel mooy da ngay defar sa sa sa jëmm ba la gis xeemeem la ñu bëgg a jaxasoog yow nga defar sa dëkkuwaay ba ku fa ñëw naw la nga defar sa ji sa jikko nag ba ku la dugg deetu la mën a bàyyi dana kii dong laa doon set sëñ Cheikh mboolem ku ko xam ak waxtu woo ko xam da nga naan rëccu naa li ma doon xamee ñi ci des doy na ci sëkk loolu la sëñ Mbàkke doon incarné rek suñ Mbàkke sëñ Cheikh rek la doon copier di teg moo ko may mu agsi fi mu agsi mooy def boppam nit koo xamante ni dafa war a servir aw askanam waaye lu doon koo xamante ne ni dafay xaar askan wi dajale jox ko pour mu consommer déedéet moo tax xàmmewul woon ganug ministre akub député akub président ak ku jóge ca tool ya di ñëw ñoom ñëpp ku ci dikk jàpp na ni moo la war a may xaalis mooy soxla loolu dara du jàmbat dara te boo dikkee mu taaj la dépense boo xamante ni moo gën sab dépense dëkkal la ci néeg yoo xamante ni nii moo gën néeg ya nga jóge ba pare jox la loo xam ne mënoo ko amal sa bopp politicien bu ñëw mu xajoo ñëpp parce que lu ma waxoon dañi dama jàpp ni réew mi maa ko war a tabax moo tax opposition bu mën a ñëw damay jàpp ni man nga dimbali si sama programme moo tax amuloon ku muy jàppale moom daa jàppoon ni gars yi ñoo koy jàppale léegi nga dégg sëñ bi def déclaré naan man maa ngi ci gannaaw diw te jaboote ñëpp moom jàppoon na ni ñoom ñëpp moom la ñuy jàppale si moom moo war a tabax réew mi te loolu la sëñ Cheikh daan wax sëñ Cheikh daan wax ne am réew bu fekkente ni li nga am lépp fa la nekk te mënoo ko génn jëm fenn képp ku ñëw di da koy defar yow lay dimbali si te ñu amuñu la neen fa neen réew mi dong la ñu yooyu daf cee mat a bàyyi xel bu baax a baax en tout cas daal kilifa ak diine moo war a jiite doxalinu àdduna kilifa ak moo war a jiite doxalinu àdduna ndax mooy maanu gi nga xamante ni nii su séddalee kenn ku ne dana jot wàllam te doolor kenn waaye su dul kooka nag laneen mooy am mooy dañuy dajale jox kenn mu lekk lu ñëpp bokk ñu yàqte ko te yooyu yëpp moo nu indil fii ñu fii ñu dox jëm ndax bu nu xoolee daara yi ñu amoon yàqu na daara yi tarbiye yi yàqu na école yi yàqu na xamatuñ fi mu doon ban tibu sénégalais moom la nii produire ban tibu sénégalais la ñuy produire amul bu fekkente ne ni da daara yi la daanaka fi mu doon nii am commerce moo fi am gone goo ci am fi mu doon nii fayal ko ñetti at mu jàngar alxuraan bu ñibbisee sa kër weer weer laa la may mu nga laaj ko bu taree fët parce que amul suivi dama cee yàkkamti ba ñetti at yi mu mokkal alxuraan waaye amul suivi bu dee taari tarbiyee fi mu doon nii da ngay yarlu nit ba mu ñëw jàpp ne fi doon nii moo gone mbedd yi ñoo àndoon maam la mag ma daan wax ni sàmmi ba ñëw ñi baabaloon gën laa suurle loolu mooy am bu dee école yi ñu tabax moom xamatoo ban tibbu senegal yi nga soxla ndax toj lu nu naqari ci réew mi ñoo ko def ñu meree luñ gis toj ko luñ gis yàqte ko bu subaa ñu taxawaat ci are yi di xaar kaar yu leen yóbbu du am nga soxla kayit mënu koo am yàqoon nañ ordinateur lakkoon nañ fële lakk fële yooyu yëpp dara mënu ci am yooyu yëpp mag ñi xamoon nañu solution bi tegoon ko waaye dañoo néew ñu leen ca doon jàppale mooy kilifa diine moo war a jiite kilifa diine moo war a jiite ndax daa am loo xamante ni ni diine da ko sas sunu borom di ko laaj bu ëllëgee nit ñi nag dañ naa la politique fii la yem lenn lu ab jullit di def loo xam ne fii la yem amul ab jullit dundam gi fii dafa lëkkaloo ak dunduk ëllëgam lépp looy def fii bu ëllëgee des na ko càmbaral te dana dana am ak pay yàlla dana àtte te dana fay bu jàpp mukk ni politique moom fii la yam ba tax lu la neex wax loo jekk lekk ko ko mën a waru war ko koo mën a wax lu bon wax ko lu bon te jàpp ni du mujj fenn da nga àggugut fa muy mujj fenn waaye boo fa àggee da xam ni lépp des na ko lijjanti àdduna ak àllaxira ñoo ànd suñu borom bayalul àdduna lu neex waay def lu neex waaye nga wax foo la neex jëm yooyu yëpp nag taxawaay yu manqué rek la moo tax faw ñu delluwaat ci daara ji formé waat nit ñi raxas seen jikko yi defaraat ko ba mu doon ay comportement yoo xamante ni dana méngoo ak jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa suñ ko defee rek lépp jëkk ndax ñi jëkk a wóotu yonent bi doon dong lañ doon dox muy doxin wi mu doon dox ci seen rek loolu lañ doon dox mooy maanu Omar ibnu Abdou Aziz danañ ko boole ci xulafaa u rashidun te ginnaaw xulafaaw rashidun la ñëw waaye demoon na ba maanu maanu goo xamante ni nii daf daan wax ni mala sax buy dox ci mbedd mi ba fakkastalu man la ko suñ borom di laaj parce que maa gouverné loolu diine ko ko may Omar bi muy jël nguur gi bu takkee ceinture gi day dugg ci biir ndax am yaram waaye dem na ba yaram wi lépp dafa seey ndax ragal gum ragal yàlla ak tiitaange gi muy tiit ci ni ñii moom nga xam ne mooy seen kilifa bu ëllëgee moom la ko suñu borom di laaj ndax matal na wala matul na Omar séddale na ay ay ay ay tiise ci Màkka Medina léegi moom li mu am mënu koo sol ndax daa gàtt Abdullah ibnu Omar doomam may ko wàllam mu sol mu ñaw ko mbubb mu gudd xutba ajjuma lay def jenn kenn yëkkati loxoom Omar ne tekk mu ni ko maanuwoo buurub jullit ñi mu ni ko lu tax nga wax ni maanuma mu ni ko mbooleem ñi nga séddoon ni sër ñëpp kenn ku ci nekk lim soldat cëkk yow nga sol lu boobu maanuwoo ci sab seddale mu door koo expliqué ni ko Abdoulaye sama doom moom ma may wàllam ma sof ko ci sama mbubb moo tax ma am mbubb ma gudd ngeen am yu gàtt ndax ñu nu jiite ñu ngi sóoraale lool ci ak maanute ndax ñuy def noonu Omar taxaw na di ba daal ni jigéen ñi can gi ñuy laaj dafa bari dañ ko wàññi am jigéen ju ñaan yëkkati loxoom ni ko alkande ñeel na la yaa Omar waa aatoo na xintaran bi na sahab la suñu borom wax Omar yedd boppam daal ni cam ndeke Omar doo dara ba jigéen di la gën a dégg diine foofu lañ ne léegi tey koo critiqué mu def la mu noonu koo ni du nii mu ne koo àndal ciy tappale nag léegi mu def la xarit sasala la ci boppam benn sax mu dénk la kàddoo léegi ku bëgg a dar ci asgor yow lay fay nga dalal ko ci kaw kooku xoolal jikko yu yàqu yooyu fi société bi toll ci waxante lu bon rawatina sax ñooñ diine fi mu doon yi nga xam ne ñoom ñoo yoroon kàddu mbooloo mi war a wax léegi génn kilifa diine ñemeetu la wax genn genn kilifa diine ñemeetu la àddu ndax boo àddoo réseaux sociaux yi lu ne lañ lay yekk lu ne ci lu bon la ñuy sànni ci sa kaw dara di boroomu njaboot kilifa diine yëpp seen njaboot yi fi mu doon nii seen xol yi naqari moo ciy nekk ndax bés bu set ñu dégg koo saafara bés bu set ñu lu bon loo xamante ne nii bëgguñu koo dégg waaye mënuñu ci dara tey lii rek moo ko waral mooy échec bi am ci nit ki ñàkkam mel melokaan wi nga xamante ne ni moom la war a mel moo tax la Cheikh yi bu doon wax fekk sëñ Fallu daa wax ni luy tax mbind rafet mbind kenn ku ne wax ci xalaatam sëñ Fallu ni leen mbind li tax mu rafet mooy araf wa day nekk fa mu war a ne ba pare ndiiru li mu doon mooy tax mbind rafet bokk ko sëñ Sooy bu déggee wax ja yéem ko daal lool loolu day baax na waaye ci nit la gën nit daa war a niru la mu doon ba pare nekk fa mu war a ne nit daa war a niiru la mu doon ba pare nekk fa mu war a nekk wax nañ fii ci tàmbali waxtaan wi ni ku kuy sagoo diine boo ñëwee doo dal ci kaw kuy sagoo yoon wi boo ñëwee doo dal ci kaw ku ko ni jàkkit doo laajte lu mu doon noonu la nit di mel mooy koo gis nga xam ni diine la représenté waaye diineem lay dund te fa mu war a féete diine itam ma nga fa ndax nit su fekkee doo ko séen ci lu yàlla tere la jëlu la ci sa alal doo wéet ak moom deru gor yàq booy wut ànd doo ànd doo te loolu moo jafe fi mu doon nii loolu loolu moo jafe lool lool bari na kilifa yoo xam ne fi mu boo leen nuyoo lañ lay jëkk a laaj mooy lu xew ci bitti ñu ngi lay fen loo te xamoo nga tàmbali waaw diw gëj na fee ko ah, sëñ bi diw daa sonn léegi de ko de ko ñaanal rekk la bëgg nga ko gestu te wax a wax a wax a wax informé ba jikko ju yàqu waaw kenn waru koo nangu xasal la sa mbokk déedéet. te yooyu bokkoon na bokkoon na ci mag ñi daan moytu bu baax a baax bay sëñ Njaay Gedde boo boo tàmbalee tudd nit rek mun la taxawal nga taxaw mun la kooku de buy naaw may naaw léegi àggaleel loo ko defee feree na la doo dem waaw mooy doo dem fenn kon bat na bàyyi xel bu baax a baax ci nu delluwaat jàngataat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la doon dundee jàng ñi ko baax ñu ko fi wóotu nga xam ne ñoo tax message bi agsi fii fan lañu ne woon noonu nag am nañ ci référence boo xamante ne nii mëneentu nañoo gis modèle bu gën a kawe loolu ci sunu bët am njàngale mi itam mënuñoo gis lu bees lu nu ci kanin di indil muy Serigne aw ni mu bëggee woon ñu dund boo gisee ni mu fente daayira rek da nga xamante ne ni ab idéologie la bu mu xamante ne ni noonu la ko teg ni démocrate yi xalaate woon ba ni mënees naa dunde nii ñoom échec nañ socialiste yi xalaatoon nañ ba tëral aw dundin échec nañ communiste yi moom bañ dee yàgg na ñoo ñëpp dañoo échec sëñ Cheikh lii tam ab xalaat la boo xamante ni jàpp na ni bu ko gën a jub ci aw dundin mënta te mooy nu ànd te yàlla tax di dimbalante ngir yàlla ku tànne sa moroom dimbali ko tànne sa moroom dimbali ko mën naa laa dimbali ci xam-xam mën naa laa dimbali ba nga am métier mën naa laa dimbali ci sama poos mën naa laa dimbali ci wax ju rafet taxawal ay jàngukaay ndax néew doole wërtatee jàng te am na ñoo xamante ne ni seen loxo jotut seen gannaaw bu fekkente ne fay la rek seen njaboot bu jàng am na ñoo xam ne école yi gën a seer mën nañ faa yóbbu seen i doom te duñ ko yëg waaye yëguñu ku néew doole ki ñu dëkkal ci seen koñ bi nga xam ne daara ji di fayu 2000 rek dooma mënu caa dem waaye faale ko ba pare ñu ne ay jullit lan kon dimbalante manqué na te ñi ci waroon a wax ñoo ci waxul mooy ñi nekk ci bopp bi ab sëriñ du dara lu ab facilitateur la rek mooy ñi néew doole dañuy ñëw di ko dey soxla ñi am doole ñëw léeg-léeg di ko jox seen alal ngir bëgg mu defal leen ko ñam mooy nay jële fii di def fee rek bu ko defee cofeel day daal di am bëggante day daal di am yërmande suñu borom day daal di wàcc waaye bu fekkee lu ñu la jox nga defee ni léegi loolu yow yow rek yaa ko jagoo denc sëñ du am compte wala boog kon am na leneen lu fa ne ndax lii xëy di la diis yi soxla daal boo desalee bay denc am na soxla yu fa yuwut yoo xam da koo dégg ba pare lànk te yàlla santu la loolu te buñ ko defee itam daa mel ni ñi lay jox ñoo la gën a gore loolu itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax euh, sëñ Mouhamed daana ko wax daana wax ñii ñi may jox duñ ma ëpp ngor maam loo ko jox benn yoon mën na koo joxaat kaneen gars yi nag da leen di jox fukk ñu toj benn ba séddale ko ñu naan sëñ bee ko baax te juróom-ñeent yaa nga mu denc lépp lay joxe ndax luñ ko gën a gore dañ ko joxe rek ni ko joxeel ma moo tax daa wax lépp lu waay di bañ ma joxe ko bu ma ko jox waaye moom itam modèle la boo xamante ne nii ku ko roy sag maas da nga ci raw ndax ni mu dunde li mu incarné li mu doonoon te réew mi yëbuñu ko politiciens yi ñëpp ko naw mbool yi dem ci ñoom ñëpp ko naw wutkati àdduna yi ñëpp ko naw niti lambda yi ñëpp ko naw jikkoom rek ko waral te mag ñi rek la doon roy kon am nañ ay royukaay am nañu référence yoo xamante ne ni suñ leen bàyyee xel danañ àgg fañ bëgg àgg suñ leen bàyyiwul xel nag waxtu ci nekk dañ di gën di dellu gannaaw ndax ñii ñu seqal moom lu ñu gën a arrière xeeb nañ ko ndax mooy tax nu mën noo not kon nun noo war a jóge foofu ngir mën a lii ci seeni loxo ñu téyal ko suñu bopp ngir mën a dem lu jafe lay doon nag ndax lu bare bari danoo raw waaye génération yi gën a tuuti lañu waroon a delloowaat ci daara yi delloowaat leen ci classe yi te taxaw ci seenu biir te def ci seen bopp yi xam-xam loolu dafay baax kilifa waxtu wu ci nekk day bàyyi xel njabootam di yor bëtam di xoolal boppam di yor ab noppam di déglu di yor tànkam di leen visité léeg-léeg léeg mu bett njaboot gi ba xam nuñ toogee léeg mu déglu njaboot gi ba xam luy xew ci seen biir moo tax problème yi am man ko régler waaye su fekkente ne ni léegi da nga da ngaa jekk rek léegi toog sa roq xamatoo luy xew mbett dana la dal dara dana riire ca kaw ba wóotul yi ak sees ba lay boole te ñàkk xam rek moo la ko teg te loolu moo xew léegi mooy ku falu léegi defe nga ni bóor nga say bokk dañ lay félicité léegi ñu tëggal la nga dàpp ni léegi dangaa ngaa te jàppu ñu ne responsabilité lañ la jox boo xamante dañ la war moo tax ñu ne yooyu yëpp daf cee mat a bàyyi xel te exemple bi ci tëj rek mooy lii xew ci seen dëkk bi rek lii xew ci hôpital fi mu ne nit dara lu dul négligence ki jiite bu fekkoon dana wàcceel boppam léeg-léeg di dem bari na loo xamante ne ni ay employé duñ ko ñeme ndax xamuñu kañ la leen kilifa gi di bett waaye su fekkee da nga tëj ci biir rek ñuy ñëw di la wax di dem ak ñëw doo yëg xew bu dara xewee da nga yëg ni sab toogaay jëkkut te lii rek moo ko waral te loolu lépp dafay feeñ ci dund gi sëñ Cheikh Mbacke bi muy liggéey jàkka ji ci kër gu mag dañuy togg ñaar togg ab laax togg ceeb amul loo koy séddaleel nag te amu ca amu ca yitte mu sol dàllam ñëw taxaw ni ubbi leen fee ni ubbi muy ceeb ni ubbi fee muy dem laax mu ni leen ku moom ceeb bi kan lañ ko toggal ñu ni maçon yi ñu ni laax bi mu ni mbooloo mi mu ni leen bu ëllëgee bu mu am suñ borom sàkkut gi bi ñu ko war a lekkub laax ak ko war a lekkub ceeb na yëpp di yem suñu toggub ceeb nañ togg ceeb mu maase walla ñu toggub laax ñëpp yem ci loolu su dul woon wàccal boppam di ko def dem bari na kilifa gu ñuy xas te fekk fi mu ne kilifa ga dara néewut ci moom ña ko dar la encadré ya ko encadré ñoo ko tee mat li mu doon waaye am na yéene xam na fu muy teg tànkam waaye dañ koo tëj séddale nañ ay nag itam ci njaareem séddale séddale séddale séddale ba liste bi jeex mu laaj liste bi ñu doon séddale xool xool ba mu yàgg mu ni gis ca koo xam ne kenn korosete wu ko mu ni ko kii lu tax joxuñu ko ka doon séddale ko kii dala jubuwut mu ni ko waaw ku la jubuwut te saa saa yooyu séddale xañ ko kañ la lay jubu koo xam ne jubu la te saa yooyu séddale xañ ko kañ la lay jubu te loolu lépp mooy ñàkk vérifier li ñu lay defar rek li ñu def ci saw tur te doo ko vérifier ba xam nu mu tëdde nga jàpp ni lépp a ngi jag te lépp jagut kilifa loolu lay def toujours lenn lu ci nekk da cay am soxla di ko nemmiku temps heure par heure mooy tax du ca woru ay dem ba xam ci loo xamante ne ni kenn xaw bu ko defee nag la nga cay noonu nga koy defee du tee nga am ci biir njaboot ñoo xam ne da nga xam seen sikk bu boobaa ngay xam sax matu kilifteef mooy da nga leen di mën a yiir ak seen sikk soose koy yiir ndax nee na koo mënta muñ ayibam matu ko kilifa te booba itam daal dox ba ñëw summi mbubbam wekk ko ci biir portement bi génn ñu tegal ko lalu campagne mu yónni waat Moussa Diop njëkk ni ko duggal ci biir sama garam bu boobu ma summi woon cinquante mille yi ci poos bi nga yót ma ko bi bàyyi njëkk di dugg am na kum taseel muy génn bàyyi njëkk làmb poos bi daju dara déw ni ko foo ko def mu ni ko ci poos mbub moom ma wékk mu ni ko ah boobu dara néew ci mu ni ko da raataloo rek waaye mi ngi ci jógal boppam dugal loxo bi ak dajut dara mu ne xalaas mu ni ko déet diw mi fi jóge donc ko jël xaaral ma dabi ko mu ni ko ëpp naa def koo mënta muñ ay ba matoo ko nii rek la ñuy yëlifee nit te loolu bu ko kilifa yoon dan dan def yépp kër yi dana dal sociétés yi dana dal ministères yeeg yépp dana dal ñiy jubati suñ borom a leen ko bind te xëy na bëgguñu ko waaye suñ borom a leen ko nattoo waaye da nga koy yiir di ko sutural ba keroog mu ñor foofu rek la mag ñu ne woon képp ah foofu dong la noonu am na koo xamee ni kenn ko doon kenn ci mag kee da ko saaga da koo dagg saaga mu ni ko eh bay diw nga mu ni ko déet bu ko siiwal maag yow dong ko dégg te man mën naa koo loolu mooy mbaax waaw ndax bu bàyyi woon kay weli ko rek ñëpp dañ ci jaati jot ni diw mi kat saaga na bàyyi diw mi te koo saaga waaye dañu ko maag yow ko déggagul te man mën naa koo muñ ko siiwal waaye noonu loolu mooy mbaax foofu rek la mag ñi ne woon noo ngi wàcce foofu sunu kàddu noo ngi jéggalu bu baax baax yàlla noonu suñu borom boole dimbali te boole nu taxaw sëñ Xaadim yal na yàlla sàmm yal na suñu motti mottali sa yéene li la mag ñu bàyyee nga di ko sàmm yàlla bu ci dara suut ñu koy ñaan ci darajey sëñ bi wér ak gudd fan aaj ju faju barke Seexul Xaadim mbooloo mépp ñoo ngi leen di ñaanal ne suñ borom ak njëggalam yal na yàlla taxaw te defal nu sutura barkeb sëñ Tuubaa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngoram fulaak ñu wéyal sunuy kàddu fiñ ci tolloon ci wax taxawaay yi ñuy séentu ci kilifa ak diine mooy xam gi mu war a xam doxalinu àdduna ndax bu fekkente ne ni daf koo umpale loolu dafa indi handicap ci ñi mu jiite ndax day dox seen digg yu bare bari yu ñu waroon a def te mënuñu koo def ndax moom ndax taxawaay yim ci waroon a taxaw du ko maîtriser ba mën caa taxaw moo tax kilifa ak diine daa war a xam doxaliinu àdduna ci boppam suñ ci jëlee kii ñu doon waxtaane léegi sëñ Cheikh nga xool ni mu yittewoo woon doxalinu réew mi réew mi ni mu yittewoo woon doxalin wi te boo ko dee wër ci ñi mu tollooloon jamono doo ci gis ñu bari ñu ci mel ni moom ci taxawaay ndax la ci jiitu rek mooy bi réew mi bëgg am indépendance la wër ci ñi mu bokkal diine ji xamal leen ni leen réew mi dafa jëm ci moom boppam ma bëgg ñun ñi ngànk diine ji nu boole sunu bopp takkutoo doon wenn say am ñu ñu représenté ci assemblée ba fa ñuy nase ba buñ nasee loo xamante ni ni méngoowut ak diine ñu teel koo indi ni leen ndax ñoo ñi di laaj réew mi xamuñu diine kon bu ñuy nas ñoom duñ nasaali diine ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo xam diine xam doxalinu àdduna suñ fa nekkoon ci assemblée ba lay gën a maanu waaye nit ñi dégguñu ko loolu coono yu baree bari la ci def ay daje yu baree bari la ci daje méngale ko itam ak doxalinu réew mi mooy fexe bañ taxawal ab association boo xamante ne dañ ko reconnaître ngir saa yu ñu bëggee daje mën a daje te kenn du leen gàllankoor. mooy it lëkkale ko ak doxalinu àdduna loolu li ko may mooy xam gi mu xam doxalinu àdduna moo tax mu mën a sensibiliser bokkam yooyu ñu àndal ngir taxawaay yi nga xamante ne ni moom la war a taxaw kon su fekkente ni dangay ngay lim ay patriote da ko ci dugal ñi bëgg seen réew ba mu jaral leen lu ne warees na ko ci yi ndax loolu mooy tax muy muy alerte loo xamante ni nii ñëwagul te jaxasoo gi mu jaxasoo ak ñoom moo tax mu mën a taxaw taxawaay boobu mu taxaw ci jamono yooyu itam taxawal syndicat doonul lu yomb ndax faw nga joxe caution ba tax na ñi fi nekkoon doon ay intellectuel pour ñu mën a àdd ci réew mi faaw ñu am kuréel gu leen lëkkale goo xamante ni ñëpp syndicat lay doon ngir ñu mën a kaas seeni droit xaalisam la yëkkati 300000 ci yooju jamono jox leen ko ngir ñu def ko caution pour mën a taxawal syndicat loolu ku doxalinu réew intéressé wut doo ci dem kon ab sëriñ wërta des rek ci diggante daa daru jullikaay bi ak jàkka ji déedéet dana manqué lu bari ndax daa am wàllu ci réew mi njabootam am wàllu ci réew mi te fañ koy laaje kàddoom àggu fa ndax amul ku ko fa nekkal te moom jotiwu fa loolu la sëñ Cheikh doon bañ moo tax mënees naa roy ci moom kilifa diine yi su fekkoon jamono booba dégg nañ ko lii nu naqari ci réew mi du am ndax balaa ñëw danañ ko mën a dindi ba mu set wecc nga gis ni itam ni bi Lamine di laaj réew mi Senghor di ko laaj sëñ Cheikh en tant que kilifa diine daa defi campagne wër réew mi orienté leen ni leen kii di tuddoo ab jullit moo gën a yay ci ñu jàppale ko ci jàppale kii nga xamante ne ni du ab jullit waaye nit ñi dégguñu ko ba tax na loole mu doon alerte ca kàmb ga kàmb ga ca lañ daanu ndax dañoo jël réew mi dénk ko ku ab jullit te diine ma ko ñor lu baree bari juddoo ci ci ak yàqu goo xamante ne ni waxoon na ko te xam kum ko xam aku doxalinam moo tax mu xam xam gum xam àdduna moo tax nga gis ni itam ni ci yittewoo gi mu yittewoo réew mi taxoon na muy fréquenté intellectuels yi ak universitaires yi nga xamante ne ni dañoo jàng wàllu àdduna